asalaamaaleykum mbokk internetu Leewtoo TV tey mardi 19 janvier 2021 ginnaaw ba ñu leen nuyoo di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ki ci mel ni Mbaye Babacar ak Assane Waalo ñu fas yéene nañu jukki xew ci xibaaru suñu làmb. jërëjëf Ndeye Mbacke ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokku internet yi nga xamante ni bi ñu ngi ñuy topp fii ci Leewtoo TV amati mbégte ak contentement ñëw ci revue des titres yi nga xam ne moom lañ leen di amal gis bu yàlla sax. dañuy jàll ci li nga xam te ne nii moom la suñu làmb xëy bind Ama Baldé nga xam ne daa bëgg a détronique nga xam ne li nga xam ne nii mooy salle de musculation bàyyiwul mu ngi ravagé lépp dund lan nga xamante ne bii moo war a jàmbaarloo ak euh, Modou Lo le des arènes ñu fekk fële ca de musculation bi muy entraîné ak ca Dine ngir waajal combat bu baax digganteem ak euh, Modou Lo dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la mais balaa loolu may nuyu internet wu Leewtoo TV di amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen ni nga ko waxee noonu la Ama Baldé pour mu bëgg a daanee Modou Lo mi ngi armé wu foofu sa bii ñu nekk ci euh, Tivaouane Peulh ak ci salle de musculation boobu nga xam ne ci Pikine la nekk Ama Baldé nag euh, journal bi nee na am na benn slogan bu bees muy travailler beaucoup travailler toujours travailler nee itam am na benn refrain boo xam ne nii Ama Baldé namm na ko trop moom mooy Ama yaa yëngal Pikine Ama mooy yëngal Pikine ba tax na dañuy jàll fi nga xam te mooy màkkatal mu karam fekk ba suñu ex roi des arènes bi di Balla Gaye de nee na aji li nga xam te ne mooy combat am contre euh, combat am contre ki nga xam te ne nii mooy Bombardier mu ngi jëm Makkatal Mukarram may jërëjëf Ndeye bi ñu mën koo fekk fële ca Makkatal dëkk bu sell boobu nga xamante ni fa lay amale umraam euh, nee moom li mu bëgg ak li muy ñaan mooy digganteem ak Bombardier mu daan ko pour mën a terminer carrière am ci anam bu rafet Assane. noonu la Babacar ni ñu ko xamee Balla Gaye depuis une semaine mi ngi màkk li mu fay def nag benn umra la fay def. moom moo fa ànd ak Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye journal bi li mu wax mooy euh, Balla Gaye bi mu demee ci Maka li mu fa ñaan moom mooy daane Bombardier nekkaat roi des arènes waaye tamit terminé en beauté carrière bii di carrière u làmbam noon la noonu noonu lañ ko déggee ah ki nga xam te ne mooy biram ñi nga manager ki nga xam te ne mooy buuru làmb ji nee na Modou Lo pare na sëgg bëre fu ñu ko yóbbu pare na pour sëgg bëre jërëjëf Ndeye Bakke Birame ñu ngi mi nga xamante ne bi moom mooy ménager roi des arènes euh, Modou Lo mi nga xamante ne bii moom moo nekk fële ca Parcelles Assainies nee na euh, pare na pour euh, jàmbaarloo ak Ama Baldé fu ñu mën di tëggee làmb ci. dëgg la Babacar biram ñu ngi. Euh, moom mooy agent Modou Lo mais moom li mu xam ne mooy ginnaaw Covid mi mi ngi fi te bloqué na lépp li fi sës rek mooy que ñu bëre ci huis clos moom nee na gisul euh, amul benn inconvénient que Modou Lo ak Ama Baldé bëree à huis clos sa arène nationale li mu wax nag mooy mu ngi moom deful lu dul déglu promoteur bi nga xam ne mooy Luc Nicolaï moo tëgg combat bi lu mu leen wax rek ñoom pare na pour def ko. suñu papa Ousmane Diouf àdduna li nga xam te ne mooy huis clos nee na organiser combat ki nga xam ne mooy Modou Lo Ama Baldé tënk ko wii ko loolu danger la may baalu la lan papa Ousmane Diouf di présentateur l'émission Lamb moo ko nekk fële ca RDV nee na diggante Modou Lo ak Ama tëgg ko huis tëgg ko huis danger mënu koo passé. dëgg la moom nee na huis clos Ama ay danger rek la lay lay jur. nee na moom d'accordul benn yoon ci waxu Bécaye Mbaye bi nga xam ne nii dafa waxoon ne Modou Lo ak euh, Ama Baldé boobu combat bi huis clos lañ koy tëgg moom d'accordul ci wax jooju wala moom nee na bu ñu demee ba koy tëgg tëgg huis clos nan fermer Pikine ak Parcelles ndax supporters yi wañ leen bàyyi benn yoon ñu ñëw ci arène bi sinon rek buñ fa dajaloo mën nañu propager waat virus bii di coronavirus bi jaajëf Babacar. mën naa nekk mënta nekk li des ñooy ñu ngi koy xool ci kanam. ki nga xam te ne mooy obli obbali turam ba obbali comme nee na moom obbali tur moom nga xam ne bee ñaan obbali moom nee na moom daal poids lourd lay wër pare na pour bari ki nga xam te ne nii Forza ak Pakala Ibou Ndiaye obbali di mbër ba nga xamante ne bii mbaru mbappat la mën a bëri mën a fecc kaar macha allah foo gën a buntu ponkal Ibou Ndiaye ñu gën ko xam ci Obali Obali nag nee na turam benn maçon moom moo ko tuddee woon ba mu nekk xale nee bi mu doon xa bi mu nekkoon xale da doon rek foofu la tur bi jógee mais li wax moom nee pare na pour bëri ak euh, ténor yi pare na pour bëri ak Forza ak euh, mbër bi nga xam ne mooy Pakala moom nag nee na mois yi fi jàll pare euh, li mu fi nekk woon yëpp mooy doon na entraîner dëkk bu nekk dem na fa uniquement pour entraîner pour pare saison bii di waaj ubbi. ki nga xam te Papa Thioune agent Tapha Tine nee na moom combat bi ko gën a marqué mooy ba Tapha Tine jàppee <laughs> jàppee Yékini Junior yéen na ba ci kaw dóor ci ba moom mooy agent Tapha Tine euh, le géant de Baol na combat gën a marqué mooy diggante Yékini Junior euh, ko waxee noonu la ba ko Tapha Tine euh, yëkkatee ci suuf. waaw Babacar noonu la Papa Thioune moom mooy agent Tapha Tine moom nag rubrique Leewtoo bu suñu lamb la invité woon li mu xam le moom mooy. combat bi ko gën a marqué la wax mu ni ngeen ko waxee noonu la combat Tapha Tine ak Yékini Junior boobu gën a marqué tamit wax na ay devisam moom nee na lim gën moom mooy julli ak liggéey wax na itam plat bi nga xam ne nii moom la mën li mu mën a togg mooy spaghetti may laajte nag spaghetti kan nga ko a <laughs> <laughs> yi jàll nag mooy ki nga xamante ne a tooyal ngeen bam juróomi at ba mu jógee ci ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux defatam boobu ca la gëj a bëree Ablaye Ndiaye depuis ba ko Gris daanee ba léegi euh, lan ko gëj a gis ji mu mujj mu mu dëgmal nga xamante ne bii mooy cinquième saison ba nga xamante ne bii ci année balance la jëm di mbër ba nga xamante ne bii car macha allah moom tamit mën naa boole di doomu na boobu boobu boobu Gris daanee ba léegi toll ci juróomi at boobu ba léegi gisuñu ko mu tooyal ngembam. ni nga ko waxee noonu la Baba Ablaye Ndiaye dernier combat bi mi ngi ko amoon 2016 contre Gris boobu ba léegi nag bëreetul léegi nag journal bi nee na mi ngi jëm ci cinquième saison blanche boo xam ne nii nar na ko tegale euh, euh, Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne nii Katy Diop moom mooy moom mooy mentoram doomu Mohamed Ndiaye la euh, di Robert Diouf moom mooy également frère Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye moom ñëpp xam nañ ko situation bi compliquée la Abdoulaye Ndiaye ñii di dund mais nag jot naa bëre 4 combats am na 3 victoires ak benn défaite Abdoulaye Ndiaye moomu daanee na gi Yékini Pape Fall ak Khadim Ndiaye numéro un Gris rek moo ko daal. lamb na maanaam namaat nañ ko yaakamte ne mu ñëw tooyalaat ngeen ma ki ñuy xaar mu àddu wax te waxagul mooy le ministre Matar Ba ñi naan Matar Ba doit briser le silence. Matar Ba gannaaw ba mbas mi duggee ci réew mi daal di euh, nërmeel li nga xamante ne bii mooy lamb ji. Euh, amateur yi ñu koy xaar nee nañ war naa yëkkati kàddu leeral euh, xelu amateur yi ci làmb ji. Babacar jamono ji ñuy waxtaan ak yéen Matar Ba ñu ngi koy dégg ci Cameroun moom ak Augustin Senghor ñoo fa nekk dañuy fay topp ci candidat candidature Augustin Senghor boobu nga xam ne day xëccoo président waaye nag waa lamb bi moom fii ci Sénégal ñu ngi koy xaar mu àddu ndaxte war na wax ci démarrage saison bi waaye également war na wax ci subvention yi nga xam ne nii dig na ko promoteur yoo xam ne nii ñoom laan wax ne buñ tëggee huis clos ñu ñu jox leen aide boobu gars yi ñu ngi koy xaar ñu wax ci yooyu ñu ngi koy déglu suñu ministre mu jàpp nañu dox làmb ji instant bi soxla nañu ubbil na mun nañ ko ki nga xamante nii fa lañ jëm nag mooy États-Unis kañ fay fekk mooy Yékini Junior man dox mbëri yi man États-Unis yoon la làmb nga xam waaw États-Unis moom koo fekk fële ca États-Unis d'Amérique muy waajal bu baax a baax boppam ndax xam na ne li koy xaar ci làmb ji dafa bëri te xam na ci lu mu jógee xam na fi mu jëm xam na fi mu bëgg a teg tànkam tamit avant États-Unis Yékini Junior mi ngi woon Turquie am na fa quelques semaines léegi nag jógee na fa mi ngi jëm États-Unis pays Erdogan euh, pays Erdogan boobu la jógee jëm ci États-Unis mi nga xam ne nii instant bi Joe Biden moom moo ko dirigé d' ailleurs sax suba yaakaar naa la war a def euh, prêter serment pour jël euh, réew moomu. Euh, Yékini Junior nag mi nga fa pour préparer saison bi li ñëw ndax moom gën na ci arène bi 2018 premier janvier 2018 la gëj a bëre ren nag ñu ngi koy wax combat moom Sa Thiès xamul fu ñu mujj mais daal moom mi ngi États-Unis di préparer bu baax. fa ñuy mujj dinañ ko déglu ci foofu la ñuy jaaree jógee fa dem ki nga xam ne mooy journal record mi xëy bind mu ne Abdou Badji l'ancien euh, l'ancien directeur technique national mu ne ku bañ kaaw rek jàppal sa position bu baax a baax a baax ku bañ kaaw rek jàppal loolu. mi ngi noonu euh, Abdou Badji moom mooy ancien directeur technique national bu làmb ji mi ngi jàppale mbër yi mi ngi dimbale mbër yi di leen wan ku bañ ñu dóor na nga daanu na naka ngay def. noonu nga ko waxee noonu la Babacar Abdou Badji moom ci affaire kaaw la ñëw xëy séq waxtaan ak euh, journal suñu làmb bi nga xam ne ni Abdou Ndour moo fa nekk. li wax nag nee ne kaaw benn terme anglo-saxon la bi nga xam ne nii knock euh, out lay signifie. nee na nag bu bu la kaawoo tu perds facilement du am benn contrôle ci yaram Abdou Badji wax na également ci euh, mbër buñ ko kaawoo dafa war a obligatoirement dem benn euh, seeti benn médecin pour que mu mën euh, benn certificat médical pour war na mën a prévoir. ci loolu lay jaaree nag retour hmm, record ba léegi bàyyiwulaa dafa jàll ci nga xam te ne mooy gur guy gi ak écurie Mor Fadam nee na guy gi et son écurie Mor Fadam retro. rétrograde li nga xamante ne mooy guy gi ak écurie ñu ngi dellu ginnaaw ginnaaw ba ñu bëree sept ba ñu amee 67 victoire ci 69 défaites ci 5 dernières saisons yi. mi ngi noonu guy gi euh, moom mi nga xamante ne bii moom mooy roi du simple yi nga xamante ne bii bu sëpp sa ñaari ngeen ku nekk say mbokk jom mu ngi noonu ñoom nañ ci écurie bi nga xamante ne bii moom la moom la jiite moom mooy écurie Mor Fadam ni nga ko waxee mel ni ñoom ñu ngi ci ay tolof tolof. dëgg la Babacar. Euh, écurie Mor Fadam ñu ngi ci ay tolof tolof tolof loolu la journal record bi wax moom nag benn jàngat la def ci juróomi saison yii ñu génn li mu wane mooy que ne euh, écurie Mor Fadam am nañ 137 combats ci 5 dernières saisons yi mais 137 combats yooyu am nañ ci 67 victoires 69 défaites benn nul maanaam dañu dellu ginnaaw bu baax a baax a baax nee na 137 combats yooyu 48 pour cent de réussite rek lañ am. am nan 27 virgule 4 combats par saison waaye li mu wax nag nee guy gi moom affaire am baaxul ndax am na ci benn combat ñaari défaite li mu wax mooy guy gi daal doxul dara arrière euh, arrière dafa arrière mais avancé wul. ñoo ngi jaajëfal ki nga xam te ne mooy Assane Waalo ak ki nga xam te ne mooy Babacar ñi ma féggaloon lii moo gënoon fës ci yéenekaay lañ jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.